Toujours un plaisir de nous retrouver devant vos petits écrans. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour un autre numéro de votre émission sans détour comme ni ngeen ko tàmm di amee saay Nous euh, waxtu wi jotee ñu teew fi ngir euh, waxtaan ak yéen waaye tey nag euh, ma dalal samay morom dalal ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci organisation bi di Badjit fa seene ak ma bàyyi rek ñu nuyoo ma commencé ko ci Adja Rouguetou Ndiaye Adja bonjour. Bonjour alors c'est Adja Rouguetou Ndiaye je suis la responsable responsable administratif et financière de budget, ainsi que la coordinatrice du club jeune de suivi budgétaire. Alors, merci à vous. Abdelkader, bonjour. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle euh, Abdelkader Boukari. Je suis chargé de programme junior euh, au sein de Budget Sénégal et aussi coordonnateur de scène Budget. alors euh, dañu fas yéene door waxtaan bi dooree ko nag euh, ak Adja ngir rek nous, expliquer ñu une raison pour leen motiver tey mettre en place li nga xam le club budgétaire ak yan objectif ngeen am fi pour doxal bi le le club. Alors, euh, Club Jeune de suivi budgétaire B, ça a été mis en place par l'ONG Budget. Donc, Budget, c'est une ONG, donc c'est une organisation non gouvernementale. Mais sa vocation, c'est euh, de promouvoir la bonne gouvernance et l'engagement citoyen à travers les nouvelles technologies. Donc, à la base, Budget a une cible euh, spécifique, cible ou une cible une autre partie de la population. Mais nous avons fait observation, on s'est dit qu'il est temps que nous mettre en place un club jeune de suivi budgétaire, tout simplement simplement parce que la première motivation, c'est qu'il y a un manque de représentativité des jeunes. qui sont gênés dans les grandes instances de décision sont jeunes à assemblée nationale nous jeunes euh, conseil euh, environnemental qui jeunes au conseil des collectivités territoriales on s'est dit que c'est pas normal que 70% de la population euh, ñoom ils n'ont pas accès à ce pouvoir de décision là la deuxième la deuxième motivation c'est l'ignorance des jeunes parce que moi, je suis à à l'école supérieure polytechnique de Dakar ma université mais dans mes premières années dama nan dégg étudiant nan bourse bi lawul motax tax muy gaaw jeex wala ñun dañoo fooy ñu nek fi di grève parce que bourse bi dañ ñuko may et je pense que lool moy la première chose qui nous a mis la puce à l'oreille Moi, ñi nga xamante ñi ngi à l'université moy le plus haut niveau d'études xamuñu bourse fan la jóge xamuñu impôt xamuñu que ñom ce sont des contribuables xamuñu que dañuy fay impôt qu'il travaille ou non parce que y a l'impôt anesthésie y a la TVA indirecte nga xamantene lo loo jënd peu importe ce que c'est boo jëndee benn bonbon sax tu payes l'impôt donc bourse bourse bi sa xaalis la yow mi ñu di liggéey tu cotises pour nos étudiants ñu mën a am suñu bourse ñun ñu tamit quand on fait un achat on cotise pour nous-mêmes donc loolu tax na ñu ne il faut que les jeunes ñu xam lan mooy finance publique il faut que ñu xam xaalisu état bi que seen xaalis la on a aussi vu benn euh, problème boo xamante ni ñun ñëpp fekkee nañ ko mooy immigration clandestine gis nañ fi jeune plus de 50 000 jeunes entre 2022 et 2024 ils sont disparus en mer que mm-hmm. je me dis que nous, ils ont un pouvoir de décision nous, ils sont concernés par état par exemple les programmes euh, destinés aux jeunes tels que FONGIP ou DER que nous avons décidé ban programme je pense que levier pour changer les choses et non donc c'est ça qui nous a un peu à créer le club et l'objectif du club c'est de créer un cadre d'échange et de partage entre les jeunes pour que nous puissions les waxtaanee problèmes lu rapport ak finance publique pour que nous xam xaalisu état bi fan la jóge ak et aussi euh, pour que nous xam un devoir ak une responsabilité en tant que citoyen et que nous puissions savoir xam lu alors vous pensez que l'atteinte euh, de ces objectifs a permis un renforcement de la compétence euh, des jeunes sur les questions des budgets. Oui, bien sûr, parce que nous avons commencé nos activités en juin 2023. Donc, de juin 2023 à maintenant, juillet 2024, on est allé euh, à Indalit, en face, pour, avec les étudiants de l'UCAD. On est allé à Doutasek. On est allé à Guédiouaï avec les jeunes de l'UBG. On est allé à l'ESP, c'est université. Demlagne aussi UGB, euh, euh, Université Gaston Berger. C'est avec toutes les rencontres qu'on a eu à faire avec les étudiants, on s'est rendu compte qu'ils en savaient très peu mais saa yu ñuy génn dinañ fexe bon ñoom ñu xam lu bëri c'est en question de budget donc je pense qu'on a pu renforcer leur capacité je pense que bépp jeune boo xamante ni mës na fekkee rencontre budget boo ci génn génnaale ci génnaale nga ci ak dara boo ci génn génna nga ci ak ay ak ay euh, réponse euh, concernant interrogation yi nga amoon si xaalisu état bi ak tout ce qui est finance publique d'accord est-ce que jéem ngeen dem jege jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo ci banlieue Bien sûr. Alors, on est allé à l'UBG, on est allé à Guédiawaye avec les jeunes de l'UBG, United Brothers of Galsen. Donc, eux, la première chose qu'on a fait avec eux, on leur a demandé qu'on est que l'an sa âge et On a vu que la majorité, musique l'air ou le football. Donc, amuñu woon un vrai emploi. Te ko ce laaj dala naan non man, duma contribuable man, un impôt donc sama yoon nekkagu si. Alors que nous donc on a eu on a pu parler avec eux nous expliquer que même si nous nous ils font partie de tout ce qui est finances publiques, même si les nous état bi seen même si nous ils ont même été surpris de savoir que am nga droit dem si sa mairie comptabilité pour l'année c'est un droit en tant que citoyen qu'ils ont et je pense que loolu mooy rencontre bi gënoon fructueux ak bi gën interactif celui avec les étudiants de la banlieue. d'accord est-ce que tu ngeen ci ay résultats positifs sur ça. oui bien sûr euh, on a créé un groupe WhatsApp avec près de plus de 200 membres maintenant et euh, on a vu que les jeunes commencent à s'intéresser énormément énormément ce n'est que di poser questions. on fait des débats chaque deux semaines sur la participation des jeunes au développement l'adoption d'une monnaie locale ou non euh, la dette publique etc. et à chaque fois on fait en sorte que nous xam beaucoup, beaucoup, beaucoup, en termes de finances publiques pour que nous ayons beaucoup d'effets, bu ñuy waxati une quelconque euh,

surpris même ci teneur intellectuelle bi ñu jot a parce que ñu fa def liggéey bo xamné profond la dañu ñew rek wax leen sujet bi moy tout ce qui concerne la dette publique daanaka li ci des yëpp ñoom ñoo ko def jangal nañ leen thèmes yi nga xamné war nañ ko aborder ak état bi ak institution yi nga xamné ñoo wara financer jeunes yi mais li ci des yëpp danaka ñoo def te lolu du lo xamné war nañu bet parce que ay étudiants yu am xarañ lañu machallah et aussi tout ce qui relève de la gestion publique maîtriser le ko bu baax. vraiment c'est ce que nous a wax. D'accord. Adja ma suis euh, ñëwaat ci ci yow lan initiative euh, Grand Prix bi nga xam ne mooy alors le Grand Prix c'est le Youth Prize Competition donc on s'est dit que xam nga jeunes yi bëgguñu lire. Mhm. bëgguñu lire dañoo tayal donc on s'est dit que nous allons joindre l'utile à l'agréable mhm. def loo xamante à la fois jeunes yi dinañ mën faire sortir leur talent et à la fois aussi nous sensibiliser leen donc on s'est dit que on va créer un prix boo xamante y aura toutes les catégories musique art rédaction d'articles design dessin et cetera ku si nekk yow li nga mën nga ñoo def ko mais que ça tourne autour du budget de l'État mhm nga def de la sensibilisation wala nga def quelque chose à titre informatif et après ça on va choisir de ñu def une grande compétition en public bu ñu paré ñu jël kenn wala ku sa catégorie nga am sa benn récompense D'accord. Alors Abdelkader, ci euh, année yi ñu jëm lan mo nara nek les grandes lignes des perspectives du club les grandes lignes de perspective du club je pense que Adja moom moo koy maîtriser parce que Benen club l'a piloté mhm. mais je pense que boo dégloo li wax et aussi boo jotee suivre les bi ñu jot a def ci biir mhm. di nga xam perspective yi du leneen lu dul connaissance budgétaire u sénégalais mhm. surtout dans ñi ak euh, xale yu jigéen ñi suma et aussi pour euh, redevabilité maanaam ndaw bu nek bu nek Sénégal ngay liggéey wala ngay ñak liggéey lépp lu politicien wara a taxaw jàkkaarloog yow wax la ان شاء الله دينا خملم لي وخ carte. d'accord surtout sur l'implication des jeunes. voilà donc nous ce qu'on voudrait instant on a un club un peu restreint de 200 membres mais nous sur une plus ambitieux, ce qu'on voudrait c'est qu'on ait des clubs régionaux mhm. chaque région a des club, chaque région avec euh, ses problèmes parce que les jeunes euh, problèmes yi ñu soulever à chaque rencontre ce sont les problèmes des collectivités territoriales pour l'instant nous, euh, on est juste plus axé sur le budget de l'État mais bëgg aller plus en profondeur dem ba budget collectif et territorial pour que chaque euh, citoyen pour que chaque jeune xam sa collectivité ñaata lañ alloué comme budget ak ñaata naka lañ koy dépensé on veut que jeunes nous, ñoom ñu xam c'est si lañ bokk mhm. ñu xam ils sont concernés parce que je me dis que xam nga sànq maa ngi lay wax que y a un manque de représentativité mais c'est que jeunes yi demuñu sax foofu noonu pour jéem fa bokk dañoo bëgg jeunes yi xam ne c'est lañ bokk pour que nous, ñu mën a à l'Assemblée nationale ñu mën nous ñëw présenter comme députés député ñu ñëw si haute instance de décision nous man dama faa bëgg bokk dama faa bëgg en place donc c'est un peu ça le but euh, les perspectives du club de nous pour que les jeunes soient impliqué dans vraiment dans la vie sociétale pour que les plombs attirent au budget de nous et ils sont concernés. d'accord webinaire euh, webinaire mensuel, c'est un budget fan la hmm. commencer. alors je vais laisser la parole à Kader. en hein, je coordinateur. que je je pense que le webinaire euh, c'est un budget d'abord vais définir tout le hmm. budget seen budget xam nañ lu c'est un budget boo xam ne ñoo point de départ bi nak euh, moy bo xolé li Adja doon wax sank ndaw ñi dañu am ben désintérêt bu ndaw ci lepp luy concerner budget au Sénégal mm-hmm. to lolu japp na né manque d'information moko andi ak aussi yenn yenn lag yo xamné instance yi wara mëna def lolu ñoko am légui sen budget dañ ko lancé euh, ce mois dernier je pense que première édition bi sax samedi dernier lañ ko mujjee am et ça parlait de tout ce qui est impact des instances qui financent les jeunes comme par exemple DER comme par exemple FONGIP comme par exemple ANPEJ ak l'UNIMEL. Les mel. point de départ bi faut la juger. Nous am une observation après si le suñu directeur Amadou je le salue de passage nous, bon il faut que nous jéem lancé lancer loo xam ne dinañ xamal nit ñi lan moy sen budget fan lañu wara dem pour mëna waxtaan ak euh, autorité budgétaire mais aussi il faut que ñu am redevabilité Légui budget nak boné budget ak IT il faut utiliser aussi les technologies technologies les boo zoom moo ci mais nous ngi planifier pour gën ko large euh, largeur pour ñëpp mën ci jot la la première fois que ci euh, je pense que y a ay professeurs yu ci comme Alioune Fall je le salue de passage comme Mingi Ndiaye est représentante des femmes là, il y a aussi comme Amatiam, est jot nañu wax ci ay thèmes yu bari jot nañu wax ci ay points yu et je pense que la question bi peut-être dina ma permettre. effectivement une euh, conclusion tirée tiré ci première édition première édition bi euh, conclusion que j'ai ci tiré mooy il faut ñu fusionner entité yi finance ndaw ñi Sénégal parce que boo xoolee mën nañ exemple bi gën pertinente bi ñu jël DER. Mhm. Euh, avec un financement de 30 milliards si je ne me trompe pas en mai 2018 7 ans après on se retrouve, selon l'ANSD, avec 23,2% de taux global de chômage, surtout ci jigéen Tidigeni 36,7% de taux de chômage contre 13,3% de chômage chez les hommes LOLUS, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. dans les zones rurales 31,7% Dans les zones urbaines, 17,5% c'est une disparité énorme C'est ce que les nak intervenants yi fa comme les la professeurs ay représentants de la société civile et aussi des étudiants et certains qui n'ont même pas de travail yo xamne idée fusionner entité yoyu créer ay espaces jeunes et aussi promouvoir encore mieux l'importance de l'inclusion budgétaire dans les réseaux sociaux parce qu'il y a une bombe de jeunes qui est en train de se préparer sur les réseaux. Euh, Brice Koué, je le salue de passage, Momo Djerewan, Idebou Melnonou et Amadou l'a bien soutenu. Je pense que idée yooyu noonu ak euh, conséquences yooyu noonu ñu bañ éviter moom lañ tiré comme conclusion. d'accord naka ngeen euh, di bëgg a def ba yaatal li nga xam audience surtout boole ci ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ak ñi. merci beaucoup pour cette question très importante parce que bi ñu parewee réunion bi ñu parewee euh, ndaje bi. Nous devons souligner que bëgg et plus plus plus précisément les nos corps, les organisations des femmes qui sont au Sénégal avons aussi intensifier notre communication dans les réseaux sociaux et j'espère avec l'apport l'aide de SeneNews News, et aussi en la présence des collectivités locales parce que Adja comme elle l'a dit c'est très important de communiquer avec ceux qui sont dans les dans les communautés locales je pense que ce que nous avons déclaré comme euh, comme stratégie. est-ce que vous ngeen ñu wax de ci li nga xam ne conception euh, vidéo interactive yi nga xam ne de même que les objectifs. vous xoolee vidéo bi ça ça va aussi ci li tax ñu sanc budget Sénégal fii mhm. boo xoolee dañuy utiliser ay technologies yu nekk suñu nos disposition jaarale ci information relatives au budget diffuser au Sénégal parce que mhm. kuy doomu Sénégal carte nga xam fan sa di fan la gérer mhm. cadre IT aussi créer vidéo point majeur du budget bi ci wolof aussi ci français su mon mhm. mon interactivité wolof bi ci boppam mooy représenté interactivité bi. parce que bu dee da ko def ci français. 70 mhm. pour cent des sénégalais si je ne me trompe pas duñu laax. dégguñu français effectivement suñ ko defee en wolof daanaka 100 pour cent sénégalais la ñuy globaliser. ñu mën a jaarale information. am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni mbir mi daal di nay leer bu baax a baax xanaa rek ma bàyyi leen ngeen tàggatoo Adja alors merci à vous merci à SeneNews de nous avoir reçus aujourd'hui mhm. vraiment ma li may tëjee rek mooy di exhorter jeunes Génie de wax ngir vers l'information mhm. venez vers l'information parce que l'information elle est disponible à vous Les li ñuy def ñun mhm. déjà sur le sur le site du ministère des finances ñun on fait juste de la simplification Donc, pour képp koo xamante comme Nicolas Kader peut-être boo déggool français ñu defal la une vidéo en wolof wala bu fekkee da vidéo en Wolof, ñu def ko mu vidéo en Wolof, rek defal la ci document bu ndaw

et aussi euh, maa wax ndaw ñep moy ñuy liggéey mais surtout ñuy liggéeyul. Mm-hmm. que vraiment bala lu neex di ñew lu naxari day am. et lu naxari moy tax ñu am doole. effectivement alors comme ni ngeen ko déggé daw leen gaaw ngeen euh, daal di dem rejoindre li nga xamné moy moy moy budget littéraire et scientifique yi ñu ci melni man nga xamné bëggu ñu chiffre dañ koy daw mais dañu dem euh, daal di daal di rejoindre équipe bi bu ko défé mu gëna yaatu et comme ñun lañ ko défal ñuy muy génie yi yaakaar naa képp ku di jeune rek nga nekk dans le secteur formel comme dans le secteur informel mën nga ci euh, daal di dugg ci noonu laa leen di tàggoo di leen jox dig daje beneen yoon euh, ci beneen numéro sans détour d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée